chaîne YouTube Tenfogo TV ñu leen di ziar di leen di jaajëfal ku ci nekk turam ak santam fépp waaye mun a nekk ci biir euh, àdduna bi France Italie États-Unis tey ñu ngi fii euh, ci goxu Ndiaffate ñu ngi seet ci benn projet bu tudd daaw projet allemand la ñoom lañ seet ci tey am ay activités yoo xamante ne nii ñu ngi koy wéer ci gox bi présentement ñu ngi ak euh, monsieur Ba Amadou Ba moom mooy coordinateur projet bi ñu bàyyi leen ñu présenté wu monsieur Ba salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def. alhamdulilah. monsieur Ba tey su ne lan nga ñu mun a wax ci ci projet bi. ci projet daaw. ci projet daaw bi. activité bi nga xamante ne fekk nañ fi ay jigéen di ko mënee. Hmm. yow lañ ñu si mun a wax. waaw euh, formation bi euh, si euh, c'est basé sur la savonnerie jigéen dañoo choisir vingt deux femmes si biir commune bu Ndiaffate pour forme leen en savonnerie et en entrepreneuriat léegi cible bi nag si biir commune bi lañ ko def waaw groupe bi nag vingt de femmes dañu composé am na ay relais cest di dire relais daaw yi nga ñu nekkoon sur le terrain def ay enquête amna ay maire handicapé ñi nga xamanté des seen doom ay handicapé lañ ak groupe de femmes Nous avons composé groupe ok euh, euh, formation yi kañ la formation? Nous avons formation ñu commencé le le 11 formation de 10 jours 10 jours 10 jours de formation exemple parce qu'il dit formation am na ci liñ leen di former d' abord ñoom lan lañ leen lan lañ leen di former ci d' abord ci formation bi. ok ban euh, produit lañ ci fii wala. waaw formation bi saabu la xam nga saabu yi moom am na ay xeetu saabu. waaw saabu bi am amal saabu carotte la saabu gommage ay saabu ordinaire bi. Mhm. te loolu yëpp gis nañ ne femmes yi fu mu ne nii. mën nañu wax ne am nañ métier boo xamante ne même buñ leen bu buñ jogee fii rek bu hmm. nekk mën na demal boppam man na former ñeneen ñeneen ñeneen ak ñu bëri mën nañ leen former ñoom si xeetu saabu yëpp lañ leen di former saabu lañ leen di hmm. donc loolu économiquement am na rentabilité économiquement c'est rentable aussi am na am na suivi waaw am na suivi parce que lépp lu ñu def que boo seetloo si biir Sénégal aussi partout dans le hmm. ay ONG di am problème ou bien ay projet mm. parce que suivi bi mooy des suivi pour toujours nit ki tamit boo ko formé mm. ou bien nga jox ko sa alal wala yenn yenn yenn yenn lu mu mm. boo ko bàyyee rek affaire bi dañ na sataan aussi femmes nii boo gisee yokku si entrepreneuriat économiquement mën nañ defar ay saabu mais nan lañ koy gérer ëllëg économique bu ñuy am nan la ñuy def ba mu jural leen leneen moo tax yokku si entrepreneuriat. ñu détaillé si tuuti. Mhm. côté entrepreneuriat lan la leen projet bi mun a indil. bu ku nekk si ñoom mun ci yëg sa bopp ok ku nekk parce que tey gox bi soixante quinze villages la donc buñ ci tànnee vingt deux personnes pour ñu bénéficier wu ci formation bi cela veut dire que donc ñoom ban rentabilité ñu leen mën a jël côté partenariat ndax aussi projet bi di leen di leen di di leen di gunge ci exemple buñ buggee taxawal benn jaay côté ay régie de commerce ak linéa ndax yooyu aussi projet bi côté loolu noonu waaw déjà projet bi daaw après formation bii nii daaw tabax na ONG daaw tabax na vingt et au niveau de la commune de Ndiakhate. au waaw léegi nag euh, bloc dizaine yooyu noonu xam nga day laajte assainissement sanitaire léegi saabu jigéen yi di defar fii ay madaar yi yëpp ci la bokk. léegi ñoom dañuy faral nag léegi alimenter toilette yooyu ñu nga xamante ne tabax nañ ko ba pare déjà loolu liggéey la léegi nag buñ buñ leen alimenter si savon ak ay madaar yooyu ba pare nag booba dinañ gis yeneen client tamit ñi nga xamante ne soxla nañ ko ñu leen koy jox ci euh, économie familiale et sociale ci la ñuy dox moom ñu am benn association bu mag

léegi nag par la suite lañ contacté daaw waxtaan ak moom mu ne mën nañu si accompagner depuis lors lañ ñëwee partenariat ak daaw voilà effectivement euh, léegi ci produit bi nga leen di former mhm. euh, yan yan composant ngeen di utiliser ak aussi est-ce que du ngeen di am yenn jafe-jafe pour euh, pour def formation bi ni mu waree parce que seetlu naa ne am na ay ay ay ay garab yoo xamante ne nii da ngeen koy wut ndax loolu noonu su ngeen koy wut da ngeen di déplacé wu wala da ngeen di fay wala aussi ndax amuleen si daal benn jafe-jafe pour def formation bi yéen ni ngeen ko war a defee savonnerie artisanale nag moom euh, am na jafe-jafe amul jafe-jafe jafe yi peut-être euh, si produit bi bariwul lool pour am produit bi jafe-jafe yi mettiwul parce que yàlla am na lu ñu may ñun euh, région de Kaolack Euh, nee nañ nit ku nekk fi nga dëkk foofa ngay fajoo garab yi la wër ñoo lay faj puisque ñun dañu am ay plantes médicinales yoo xam ne ñu ngi fi vraiment euh, ci yooyu rek la ñu utiliser pour daal di defar savon yi li ko demee ni que mbir bëf mbir bëf ku nekk xam na I'm fi. mu ci français morga euh, margose français voilà ci moringa bi dañ koy soxla ci savon antiseptique mm-hmm. aloe vera mm-hmm. dañ koy soxla mm-hmm. euh, li ci demee ni que garabu bouteille, eucalyptus bi dañ koy donc mel fi mais li xaw a soude mooy xeme xeme bi ñuy utiliser pour faire ça parce que sur le marché parfois pour nga gis fa xeme bu bees mhm. xeme boo xam ne varié wu dafay xaw a problème aussi utilisation produit bi dañuy soxla yenn règle d'hygiène manam yenn tenue de qui euh, protection professionnelle parfois, il y a des problèmes. Parce que parfois, des chers du tout, le Dominique masqué. Il y Nous mm-hmm. avons un masqué qui a une durabilité. Parce que nous avons déjà déjà 22 personnes. Nous avons 50 masques de diable. C'est important ce processus -là. parce que moment bi ngay mélanger soude bi ak peau bi mm. moment bi ngay def saponification bi mooy mélange soude bi ak à bi plus les huiles mm-hmm. ça pose problème il faut un masque pour ko amulee rek da ngay respirer produit boobu noonu te baaxul si si poumon et day joxe ay maladies respiratoires effectivement voilà formations euh, formation bi nga xamante ne nii defal nga ko suñu yaay mm-hmm. ban valeur ajoutée la leen rentable a côté économique quoi waaw amna solo lol lol lol. parce que daw li waral mu financer formation bi moy mm-hmm. dañ fi construire ay toilettes ci école yi Légui toilettes yoyu dafa war am entretien comme dafa war am entretien ñu ne nañ jël mama yi nga xamné ñom ñoom ñoo nekk ci gox bi ñu former leen ci ay produits d'entretien nga xamné en même temps dinañ mëna produire di servir école yoyu noonu produits d'entretien yi xam nga loolu atu la ci ñoom parce que ñoom la ñuy defar mm-hmm duñ ko may bi dañ en même temps di ci am profit dañ ci am ay ressources gagné aussi ñom dañ daan saabu dinañ am sen saabu pour sen kër yi hmm. dinañ jaay sen dëkkandoo hmm. te dinañ former aussi jeunes parce que kenn ku ci président groupe bi kenn ku nekk sa gox da ngay restitution Mmh. avons nga bokkal groupement groupement bi aussi dina mmh. pour gox ba mmh. formation bi plan Sénégal émergent donc pour ñu def émergence il faut que ku ci nekk gox bu former les former gone yi pour ñu am métier voilà jàppale côté entrepreneurial, ñoom projet bi. ak yow bi leen formé naka la leen mun a gunge bu ñoom aussi ñu gis seen bopp côté entrepreneuriat bi. parce que tey ñoom elles sont prêtes pour mun nañ génn dem bëgg a def seen action bopp yoo xamante ne dañ koy indil valeur te fii nii day xaw a am. jafe-jafe ci ci côté yëpp mel ni ay NINEA yu mel ni ay régis de commerce yu mel ni place boo xamante ne nii di ko mun a def fii ci loolu ban ban valeur ajoutée lañ mun a am ñoom côté entrepreneuriat bi. waaw côté entrepreneuriat bi euh, tenir nañ ci compte bu baax. comme daaw ñu ngi ciy tenir compte bu baax parce que. Mhm. déjà ci biir formation bi dañ ko programmer pour dix jours mais dans les dix jours il y a deux jours d'entrepreneuriat bu ñu leen former incha allah mooy formation bi def jours d'entrepreneuriat. Mhm. jéem leen a saytu laaj leen. Mm-hmm. kenn ku ci nekk nan nga bëgg liggéeyee boo fi jógee. léegi nag ci biir loolu. Mm-hmm. daaw dalay lay accompagner. te li nga wax noonu da leen di accompagner yaa xam GIE ngeen bëgg a def. Mm-hmm. mu accompagner leen. jàppale leen ba ngeen am papier yi ngeen war a am pour nekk GIE pour def seen GIE. peut-être même dina dem ba. Euh, utal leen ay financement ñu mën a commencer seen liggéey loolu mooy euh, kii yu daaw ak madame le maire Ndiaffate. Mhm. lolu mom moy sen euh, préoccupation fu mu nekk nii parce que dañu bëgg euh gox bi daal suqaliku mhm. légui nak lool mo waral ñu def formation bi li premier pas la mhm. après entrepreneuriat bi mi ngi ñëw après aussi financement yi mi ngi ñëw inshallah euh ban relation nga am ak ñi ngeen former parce que gis naa am na am na ambiance daal gis naa benn déggoo seen biir gis naa sax ñu doon fekk di woy ban relation daal nga am ak ñi nga xamante ne nii. waaw xam nga mbirum jigéen la rek. Hmm. am na ñu ci bëri tey laa ci formation bi laa ñuy doog a tegante bët. am na ci ñoo xam ne nag xamante nañ parce que gox bi benn la Kaolack région de Kaolack. daanaka euh, dañuy xamante waaw.

té bu fekkee ne que yow da nga jangalé ak souplesse mhm. ak nit ki bo dugal sa savoir ci mom mom mhm. da lay respecté da lay jàppee ni boppam waaw lool la fi mu nekk nii man dama waccé sama bopp melni ma ak ñom ñoo bokk waaw mhm. lool motax bo xolé tay ñu doon def évaluation bi té 3 jours de formation lañu def pour def savon ñom défar nañ tey seen savon bopp waxuma ci yënguwuma ci ñom ñoo def seen lépp ñoo def seen dosage def seen lépp la façon savon c'était c'était à 40 minutes évaluation elles ont réussi ça en 25 minutes. Ah, madame c'est nous ngi lay jaajëfal sa wax rafet na franchement am nañ mbégte ak kon je suis chaîne le Teen Info TV. charrette wala donc koy jënd wala projet bi ñoo leen di financé ñoom jënd ñoom ñu ngi def ba am composant yooyu. waaw euh, composant yooyu lépp gàncax la lépp si gàncax la lañ composé léegi nag gàncax bi nag euh, centre bu pédologie bu Ndiaffate muy tuddee INP mhm. mën naa ne garab bi yëpp xob yëpp fii lañ ko jëlee li pour won leen rek mhm. euh, nan la euh, centre bi amee njëriñ te nit ñi dañ ko war a valoriser parce que ñu bëri dañ fiy romb te xamuñ lan moo fi xew te alors fii nii mhm. dafa am milieu bu riche la ci mbalu planté ay arbre yu riche ñoo fi ne donc luñ formation bi yëpp jigéen ñi après dañoo dem génnee xob ñëw dajale ba mën a def saabu parce que daf ñuy dimbale aussi euh, mooy reboisement parce que am na benn journée de reboisement bu ñu lancé parce que pour wax leen rek nag la garab amee njëriñ parce que garab ay xotti butéel yi ay mbër bëf yi ñuy def di ko négliger ay citron feuille de citron yi hmm. loolu yëpp dafa am dafa am njëriñ donc ku ne moo ko war a préserver ba mu garde nature bi boo xamante ne mën nga si njëriñ mu njëriñ la kon ñoom daal amul lenn loo xamante ne nii génn nañ ci centre bi. non non non yëpp fii lañ ko am ko parce que centre bi aussi bon pour nga xam njëriñam aussi foog nga am chance. Hmm. ñëw dugg ñëw visiter ko waaw nit ñi bëri dañuy romb. Hmm. foog ne lii nii sax ñoo xamante dañ ko fi tabax. te amul benn njëriñ te franchement gis naa ne fii. ay millions lañ fi def. ay millions kenn du ko def koo xamante ne nii amul solo donc lii foog naa ne preuve la pour gars yi bàyyi si xel bu képp koo xamante ne nii. bëgg nga di yëngu ci affaire yi comme genre formation yu mel nii. nga ñëw ci centre bi gëstu am na ay experts yu fi ne mën nañu si jàppale ci ay affaires yu bëri donc ñoom daal su ma la déggee daal amuñu benn jafe-jafe ci côté liggéey. non côté liggéey moom amuñu benn même ñoom aussi seen formation bi am na ay charte am na waaw parce que bu ñëwee groupe bi hmm. dañoo tegal règlement intérieur ñu nominé benn femme benn jigéen ñu tuddee ko chef de village moom mooy gérer yëpp boo tardé moo lay amaan pour yëpp liggéey bi mën a jaar si yoon. amaan bi ay si ñaar. amaan cent franc la boo tardé. boo tardé waaw am na ñuy tardé. am na ñuy tardé am na sax ñuy absenté nag problème mu liggéey lañ nekk ak tool yi. ak kii tool ay yeneen feebar yeneen difficulté familiale yoo xamante ne nit ki mën na tardé. ok te loolu tamit dañ koy comprendre mais est ce que mun nañu may tuuti côté santé. projet daaw. je projet allemand la. waaw projet allemand ban apport la indil commune bon apport bu mu indi fii mooy prise de prise de conscience parce que jàngal nañu lu bëri si mbàllum suivi jàngal nañu boo comme ça léegi boo amee projet projet bu mënti ñëw fi bu mënti doon déjà daaw man euh, moo tax man ñu recruter ma pour suivi kese la euh, moo tax ñu recruter ma comme animateur du projet lépp luy suivi man maa man maa ko téye donc mooy dëpp buñ commencé aussi di construire les suivi bi ñuy continuer loolu yëpp ñu ngi sur le terrain di suivre ba toilettes yi ci ci deux mois lañ ko tabax mu pare. ak ñaata toilettes am ko. 21 blocs sanitaires. 21 blocs waaw partout dans la commune. dans la commune de Ndiakhate effectivement. ay 4 10 ménages ak 11 toilettes yoo xamante ni mu ngi si biir yi ak 6 puits. ak 6 loolu am na monsieur Ba bu loolu weesoo yow personnellement gis nañ yaa ngi def ay jéego yu am solo ci biir commune bi. ban lien moom nga am ak euh, mairie bi mairie de Ndiaffate madame le maire waaw xam nga xam nga jeune mhm. euh, puisque laaj nga ma loo xamante ni aussi li may bugg a li may bugg wax li may wax à chaque fois mhm. gis nga jeune bu nekkee dans un milieu mhm. danga war a apporter participation ba nga xool nan la commune bi di waree dem gox bi mën a avancé parce que waroo toog rek non solement nag joxuñu dara parce que ñun dañu mu am ay sacrifice développement balaa mu am foog qu'il y ait des sacrifices mënuñ fi développer sans sacrifice mënoo toog rek jékki-jékki rek am dara parce que man fii laa nekkoon jàng naa à l'université def naa sama master ñëw toog après ma ñëwaat si àll bi di béy ñee di naan ma kii dof na bay na jàngam fu mu mu ngi nii di wayat di master en lan master en anglais laa def étude américaine léegi ma paree foofu ñëw di béy ñee naan kii dof na bay na jàngam continuer loolu def business def naa business aussi bu jógee si business bi ñee xoolal kii ak diplôme am yëpp mu ngi nii business mu ngi ñàkk fay def encore di di yëngu si biir commune bi bu ma gisee loo xamante war nañ ko defar ma koy defar hmm. bu gisee loo xamante ne war naa ko mën a apporter solution ma koy apporter defewuñu ma si dara maire bu ma soxlaa bëgg a régler des situations bon dama koy régler sans dara effectivement voilà man relation boobu laa am ak euh, ak la commune de Ndiaffate te foog naa ne jeunes yi yëpp nit ki politique politique buñ paree si politique ngir yàlla liggéey moo des politique nag gis nga nit ki bu defee lu baax hmm. neel kii def na lu baax bu defee ne xamante ne warul def noonu ne woo ko ndànk nga ne ah wante bëgg naa nii ak nii nañ ko defee nii loolu mooy loolu mooy développement mais nag nga gis dara ba pare hmm. surtout nag di leurrer la population nga naan lii dee luñ def lii lii dara baaxu si ngay nax di naxaa di nax sa bopp di naxaat donc bëgg naa aussi ñun yëpp ñu ñoo bokk commune bi. waaw jeune bu ne war nga def loo xamante ne fii kat mbir yëpp dañ siy gis seen bopp. yow yaa tudd naka. Ami Ngom noo gisee formation bi. waaw ah, formation bi kon vraiment baax na kontaan naa ci trop. loo xam ne boo ko def liñ ci fay xaalis bu bari ñu fayal la nga def ko kon doo def lu mooy kontaan si di leen gërëm di leen sant di gërëm ñu ñu fayal di sant tamit suñ formatrice yi ñaawul yu baax yi trop waaw kontaan naa trop loolu daal laa amal lu ma ciy wax.

ci wàllu formatrice yi nga xam ne biñ dalee formation bi ak madame seen ba léegi nangul nañu lu ne mënal nañu lu ne ndax ay mag neexuñoo jàngal mm-hmm. dinañ coow dinañ xuloo dinañ werante waaye am na maîtrise boo xam ne mën nañoo maîtriser ci suñu rythme ci suñuy jikko boo tax lépp lu ñu a réussir ci kii bi ci li ñu jot a def yépp wax dëgg yàlla jàpp nañ ko bu baax ci wàll bu ne ci wàllu accueil bu ñu accueil jàngal bu ñu leer bu ñu jàngal ci wàllu lekk gi tam macha allah yëpp rafet na la ñaan yàlla na yàlla nañu yàlla continuer loolu ci amee ñu jëriñoo ko. merci. ñaanal nag waa projet bi nag fu ñu bëgg a yegg ak ñun di waa daaw. Hmm. yal nañ fa yegg ba weertu suñu njort. jaajëfalal mu bëgg wala il formation ne ne gàttanoon formation de ne ga'tanuma formation ne kam etit ka kam simna fopa ful avant tout parce que in we meen ngeta meen in we mbiya meen cinq à 6 jours wax deug yalla euh, formatrice fay a jega qualité ka andoona ye wax deug yalla ino nga atena ko ina paax o yele fa fa in axe dimbalé a in bo xu na teen daal andaame o xanga men

ingidma teen o tew in te ref euh, madame Assou Ndiaye ah, waaw parce que am le maire lañ koy gërëm di ko sant mhm. parce que lépp yàlla ak moom lu dee ci rëbb yàlla ak naat moom moo bëgg yokkute jigéenu njaafat te ni mu bëggee jigéenu njaafat yokku yal na ko yàlla yokkee noonu ba mu yëg ko lépp loo xam ne naal na ko yal na ko weer ba ñëpp gis ko yal na ko yàlla musal ñun ñi nekk fii tamit nag liñ fi jële wax deug Yalla yalla na Yalla barkel yalla na yalla barkel ki nga xamne mo jël xam-xam bi sol ko ci suñuy bop aussi yalla nako yalla yok ba mu yek ko station comme restauration wala céréales rocard wala fabrique de jus de fruits yoy yep ñun bëgg nañ waaw lepp dal ngir ñu yok parce que ñun ay jigen lañ amul ñu doole té li moy tax ñun ñu mëna xex xeex dool yal na yalla ñu yokk parce que liggéey ak jigéen yombul ñun bëri nañ wax ñun ku nekk yaa yëg sa bopp mais moom itamit daf fi nekk nekk ku oyof lañ set bi gën a tuuti buñ ko soxlaa dafay daw dem uutali bi xale yi yor doom dafay veye ci seen doom di leen nax di leen def lu ne fii daal bu yeboo ma ne la on est ensemble waaw esprit de groupe a ngi fii nu dans nous la ñuy liggéeyee jërëjëf jërëjëf soxna si ten fogo tv ñu ngi leen di jaajëfal ok ten fogo tv yàlla ndax minen madame le maire nde allah addani min ɗum ɗo jaafa o heynori commune o ko nden min mbi alhamdoulillahi rabbil alamina dak ko madame le maire komin mbaɗat ɓe ɗum tiitar o minen ɗum mbaɗa ndamo nden noon komin jettirat ɓe ɗum allah dak allah okki min ɗum o formation minen jetta allah ne nde allah waddi min e procéda o gatɓe ɓe sah minen ne ɗon minen ɗon jetta allah ndax rewɓe nogas e ɗiɗo janggata ɗo kono min beññidani min kaɓani ko jam tan kala ko neɗɗo sohli lamɗo in moro mum minen pija minen jala nden noon minen jetta allah minen ñagano madame le maire kala ɗo yiiɗi heɓo yo allah heɓnoy ɗum ɗon yo allah okku ɗum balɗe julɓe cellam procé daw yo allah naɓruɓe yeeso kala koɓe cohli yo allah waɗan ɓe in kala dugato burɗi jo kerso sekkumba commune de diafa commune de diafa e eh, alhamdoulillahi owa allah tigana oga faren tigana aɗo astu jaabi ha gada to keñande ke galle halloye ɗenki lemne yene lemne ɓe anda to pour señan aɗa golle kiñando kuyyere aɗa yaago bugoy aɗo deema na koren deema na lendi jaaxun deema ke golle ama baroodi par ce que a bugu noquɓe eh, ko golle okudatu sonun kun kismare ne kismare ken hun bai kenya ne samba jawara samba jawara kismare ne aga da asuri to kuda o ma yago o wa Allah ya gana digano arna yam fu dan asun jai da ya harun de ma asun jai hinne ya harunga a hinne ka gumun kai hasu gana da ke komin di yare ke lemne no du warade ke golle da na to da nya ka do sagara ya da jikke ya kitodi kuma da jikken kitodi o ko du du ko o kana jikken kitadi o wa du wanada lemne na arna nya khirse khirse barkante ke golle ka arna barkel laade ku lemnu be garu ndax wo o kharangunde ni lemne famonto unta butunu unta tampine parce que khirse gollenta khirse ala muhammadu franchement kontaante bu mag ak mbégte bu mag lañ am jàkkaarloo ak yow mbégte bu ak question mbokk internet yi nekk suñu chaîne YouTube Senfootball TV ñu leen di jaajëfal Snakanie, no,